li may ñaan président de la république rek mooy élection locale yi lu mu gën a gaaw na ko organiser na gaaw organiser élection locale yi élection locale yi moom yàkkamti nañ ko trop ndax sunu mandat jeex na te askan bi ñii bëgg nañu ñee bañ nañu ku nekk ka foor a toog nga toog fa ndax coow li jeex ndax année électorale moo gën a métti ci àdduna année électorale ñii lu mu sa rafet dañ koy ñaawal lu mu sa ñaawal ñu baaxal ko loolu day dem ba nga xam ne du seen jikko mais dañoo jàpp ci wax ju ñaaw lañuy ñuy mën amee seen bopp. mooy liggéey